sëñ bi di wax na itam mu ngi leen di nuyoo léeg jot li nuyoo Ibrahima Khalil Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal ak njabootu Cheikh Mamadou Fadal gépp euh, jàpp nañ ci ci yoon wi soññee nañ ci la leen ci war lépp dox nañ ko sëñ Fallou rek la leen di booleel moom mi leen boole woon moom la leen di booleel moo fayal leen boppam. maaleykum mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo farewoo Touba Argentine. Euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax ci turu sëriñ Abul Baraka moom Cheikh Mouhamadou Fadal mi nu àndal moom it mu leen di nuyu ci turu sëriñ Touba sëñ Mountakha Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Bassir ak njabootu Cheikh Mouhamadou Fadal gépp ak njabootu sëriñ Touba gépp euh, di nga xam ne agsi na ci jàmm te tam teertu bi xolom seet na ci lool set na guy te dongo bi bu yëngatoo ba xolub sëriñ bi set xolom dana set incha allah. ñëw bi mu fi ñëw nag dafa ñëw ngir dimbale si dimbale si jaami yàlla yi dimbale si njabootu Cheikh Ahmadou si sëñ Touba gi dimbale si ñëpp ñu nga xam ne am nañ pas-pasu gis ko kon nañu rafet njort ci ñëwam bi mu fi ñëw ndax am na yu mu fi dégg yoo xam ne incha allahu rabbi dana ñaan ci Cheikh Mamadou Fadal borom saafara ko eh, na mu te nañ ci am ak rafet njort bu baax ci ñëwam bi mu fi ñëw ndax tey la fi ma sa ñëw waaye bu soobee yàlla nun taalibe yi nun jullit yi ñun ñun taalibe sëñ Tuubaa li nu bëgg moom sëñ Tuubaa na ko defal ci kàttan nag yàlla baaxu Cheikh Mamadou Fadal la koy ñaan te bu ko ñaanee sëñ Fall dana ko defal na ngeen rafet jot bu a baax kon ñu yemandi fi kàddu yi rek xam ne sëñ bi daal xolam seet na ci teertu bi kon ba ci kanam mbaa ba suba ak jàmm incha allah jërë ngeen jëf mu ngi sant waa euh, Argentine Top TV nga xam ne su ñoo jël si dimance bi. di leen ñaanal bu baax ba télé yi nga xam ne yu ñuy dégg la ci àdduna bi seen télé bi bokk ci ak itam télé Brésil TV ñoom itam kasaalika jàmbaar lañ lool na leen yàlla dimbale te sàmm leen ba fu ngeen àgg bëgg a àgg fépp ngeen àgg fa ci barkeb Seexul Xadim daraja Seex Ahmadu Faadil jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah